ci suñu émission bi nga xamante ne nii moom la ñuy amee tudd ko li nga xamante ne moom moo di alquranul karim mooy li ñu mën a teg ci aw yoon mooy li ñu mën a gindi mooy li nga xamante ne nii moo ñu mën a yóbbu fa yàlla subhanahu wa taala di ko amele fii ci la maison du Coran nga xamante ne nii mooy al baytul qurani fi Sénégal incha allahu tabaraka wa ñu ànd ak yéen tey ci saar bu am solo saar woo xamante ni nii yàlla subhaanahu wa taala moo ko baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxe ko xeet wi yépp mu nekk garab ci feebar yoo xamante ne ni inchaa allahu rabbi bu ñu ko jëlee dina faj ay feebar dina raxas ay xol dina gindi ay xel ba ñu dëgmalaat yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi saar woowu moom moo di suratu Maryam nga xamante ne nii yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ko suñu yaay Maryam di yaayu yonent yàlla Isa alayhi salaam mbokk yi suratu Maryam bala ñoo dugg ci saar wi dañoo bëgg a ñëw ak yéen. ci yenn leeral yoo xamante ne ni dafa aju ci saar wi ndaxte loolu daf ci am solo ñu xam fan la saar wi wàcc ak yenn mbir la saar wi détaillé lan la waxtaane loolu dina tax ba ki koy déglu ki koy jàng gën a jox gëdd saar wi waaye bu koy jàngati baneen yoon du yem ak bu ko daan jàng avant parce que léegi dina xam lan la yàlla subhanahu wa taala wax fii ak lan moo tax mu waxe nii ak lan moo tax mu indi lii mbokk yi suratu Maryam bi ci njëkk makkatal mukarrama la wàcc loolu imam qurtubi rahmatullahi alayhi wax na ko ci tafsiram wax ni bil ijma ñépp dëppoo nañ ni suratu Maryam mu ngi wàcc fi nga xamante ne ni moom moo di makkatal mukarram te loolu ibnu kathir rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali jële ko ci ki nga xamante ne nii mooy muhammad ibnu ishaq borom siira nga xamante ne nii ñëpp xam nañ ko ibnu ishaq moom moo wax ni keroog ba saxaaba yi gàddaayee jóge makkatal mukarrama dem xabasha fekki fa buur boobee nga xamante ne nii yonent bi moo leen fa yabaloon ba ñu eggee ci kanam keroog suuratu Maryam la fa jàng te loolu day wane ni kon saar yi Makka la wàcc te gaa yi Makka lañ jóge gàddaay dem fi nga xamante ne ni moom moo di Habasha loolu benn firnde la ci ci buy wane ni euh, li nga xamante ne ni moom moo di euh, suuratu Maryam Makkatal Mukarrama la wàcc moom nag mu ngi wàcc ginnaaw bi suuratu Faatiri wàccee suuratu Faatiri bi mu wàccee après la yàlla di doog a wàcce ki nga xamante ni moom moo di suratu Maryam euh, tur wi tur wi dañuy wax ni benn waay bu ñuy wax Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abi Maryam moom moo mus a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa benn jour ni ko sama soxna day dafa am doom tey doom ju jigéen yonent bi daan ne ko ah. manit de tey jii ci guddi lañu ñu ci man aw saar tudde ko Maryam alayhi salaam nga xam ni kon tur wi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko te yonent bi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa li mu wax fa yàlla subhanahu wa ta'ala la bàyyi ko mbokk yi Abdullah ibn Abbas nga xamante ne ni moom moo di xibrul umma moom dañuy wax ni dafa daan tudde saar wii suuratu kaaf haa yaa ayn saad saar wi noonu mu commencé Abdullah ibn Abbas moom noonu la ko daan tudde suuratu kaaf haa yaa ayn saad nga xam ni kon ay tur ñëw na ci te mooy ñaari tur yi ma ci lim ñiy tudd ko suuratu mariyam te mooy li gën a siiw waaye Abdullah ibn Abbas daana ko tudde loolu li nga xamante ne nii moom moo di suñu yaay mariyam mu nekkoon jigéen ju baax te incha allahu tabaraka wa taala dinañ ñëw ak yéen ci li nga xamante ne nii moom mooy ak dundam moom mooy benn jigéen boo xamante ne nii turam ñëw na ci alquran amul beneen jigéen bu turam rot ci alquranul karim mu leer naññ naññ naññ ku dul yaay Maryam moom kase te turam ñëw na ci alquran ci lu fan weer yoon trent fois yàlla tudd na turu yaay Maryam ci alquranul karim li nga xamante ne nii moom moo di suuratu Maryam ku koy jàng da ngay fekk ni yàlla subhaanahu wa taala daf cee nettali yu bari ay qissa te qissa dafa bokk ci juróomi mbir yi nga xamante ne nii alquran moom la détaillé alquran yàlla dafa wax ci juróomi mbir yoo xamante ne nii lépp génn ko bokk na ci li nga xamante ne nii moom moo di ay qissa yoo xamante ne nii yàlla subhanahu wa moo ñu ko nettali qissa yooyu nag yàlla daf ñu ko jox ngir mu yokkuñu ak ngëm yàlla ngir mu gën ñoo taxawloo ci lu ñu gëm waaye tamit kazalika ngir ñu gën a topp li nga xamante ne nii moom mooy ndigali yàlla bàyyi ay tere mbokk yi euh, booy xool commencement suratu yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko ubbee ay ñaan ñaan yoo xamante ne nii benn yonent buñ daan wax yonent yàlla Zakariya alayhi salaam moo ko ubbee ay ñaan di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul na ko ñaanam ga lan la ñaanoon lan la ko nangul loolu yëpp dina ñëw ci biir saar wi incha allah après loolu yàlla subhaanahu wa taala waxtaane na ki nga xamante ne nii nag moom mooy ki ñu tudd saar wi muy yaay mariyam alayha salaam nga xamante ni nii yàlla dugg na ci ak dundam am yu ci leeral ak naka la def ba am doom doomam jooje ñëw nekk yonent te mooy yonent yàlla Isa عليه الصلاة والسلام كن بوكي لولو لو خامتيني ني لو يالا تودو لاشي القران واي تاميت ابري تودنا يينن قصه يو خامتيني ني ا آه، يونتي لا كو ملني ابراهيم اك كو ملني يونتي الله موسى اك كو ملني الله اسماعيل اك يونتي الله ادريس نيوم نيوجو نييب يالا سبحانه وتعالى تودنا لن فيغا خامتيني ني موم مودي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا نحن تريني يا الله سبحانه وتعالى تدنا فوف ين ينت لمنك ينت يا الله نوح ينت يا الله إبراهيم ينت يا الله إسماعيل إدريس موسى ñoom ñëpp yàlla tudd leen ci saar wi waaye tuddin woo xamante ni ni tudd wu gàtt la fii daf fay tënk rek incha allah yeneen saar yi ngay dem fekk yàlla daat fay détaillé waaye surtout Mariam yàlla dafa tudd xissa yu ndaw a ndaw rek ci ñi nga xamante ne ni ñoom laa fi lim léegi ci yeneen yi mbokk yi beneen bi suurtu Mariam laal na leeral na détaillé na yenn wax yoo xamante ni nii bokkaalekat yi ñoo koy wax lu mel ni ki yàlla dafa am doom yàlla wax na loolu ci suurtu Maryam weddi na ko yàq na la nga xamante ni nii mooy ñoo ñee seeni wax daal di koy neenal te buñ ci eggee incha allah rabbi dina leer am na gaa yi wax naan ah dekki amul dëkki dañ koy nettali rek naan nit bu deewee dañ koy dekki lak am na fu muy tëdd bu tudd barsax après dañ koy dekkil di ko laaj lu mu doon def am na ñoom tamit ni gëmuñu loolu yàlla subhanahu wa taala yey na leen ci suuratu Maryam yàlla subhanahu wa taala tontu na leen ci suuratu Maryam kon ak ñeneen ñoo xamante ne nii seen taxawaay ci alquran leerul dañuy wax ni masalan alquran bàyyi koowul fa yàlla subhanahu wa taala ak ay mbir yoo xamante ne nii waral na sax yàlla bi muy commencé saar wi mu commencé ko ci lu yéeme muy kaaf haa yaa ayn saad nga xamante ni loolu moom inchaa allahu tabaraka wa taala bu ñu ci ñëwee di ko leeral ah dina nekk loo xamante ni nii luy firnde ne ni lii nii fa yàlla subhanahu wa taala la bàyyi ko mbokk yi yàlla mu ngi wax ci alquran wa yaqulu l أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا yàlla nee na yow doomu aadama yow mi naan est-ce que dinañ ma dekkilaat yàlla posé na la question nee na la wax xanaa yow amalu ma la te fekk amoo woon yow existé woo woon di dundoo woon amoo woon man yàlla subhanahu wa taala maa la amal kon loolu bokk na ci mbir yoo xamante ne nii yàlla tudd na ko ci biir saar wi te dinañ ci ñëw incha allah mbokk yi kon bu ñu bàyyee xel bu baax ci yi nga xamante ni jot naa cee jaar jot koo leeral da gis ni yàlla bi nga xamante ne nii moom moo ci njëkk ginnaaw bi mu ubbee saar wi leeral na ni moom yàlla kenn la waaye tamit dàq na ak bokkaale di ko wutal ndend moom yàlla subhanahu wa waaye tamit kazalika ci biir saar wi saxal na fi ni dekki am na waaye tamit indi na fi ay qissa muy qisasul anbiya te qissa bu nekk insha allahu rabbi dinañ ci ñëw na nga xamante ne ni noonu la ware waaye tamit kadalika saar wi leeral na ay shubuhaat shubuhaat bu ñu ko waxee mooy lënt-lënt yoo xamante ne nii imma da dul leer ci bopp nit ki wa imma ay nit ñoo koy créer di ko dugal ci boppi nit ñi di leen weddiloo seen diine loolee alquran ji leeral na ko ci saar wi te incha allahu rabbi dinañ ci ñëw waaye tamit alquran suratu Maryam détaillé na li nga xamante ne ni moom mooy saar wi bi uslubin aatifi bi uslubin aatifiyin jamil mbokk yi boo jàng suratu Maryam danga nga ni yàlla ni mu tudde saar wi aaya yi ni mu ko doon dafay neex yàlla subhanahu wa taala tuddin wu neex la tudde saar bi waaw zikru rahmati rabbika abdahu zakariya yaa ngi dégg da nga ciy fekk ay baat baat yoo xamante ne nii baat yu neex a tudd la ah baatu arrahman dafa bari lool ci li nga xamante ne nii moom moo di suratu maryam inna alladina amanu wa amilu salihati sa yajcalu lahum arrahmanu wudda ak baat yoo xamante ne nii baat yu neex a wax la comme lu mel ni ki baatu euh, arrahman walla baatu arrahma wala baatu radiya wala baatu xafiya najiya mu nekk ay baat yu neex yoo xamante ni ni noo noonee la ko tudde waaye ci suurtu Maryam mu nekk saar woo xamante ne nii yàlla daf ko tëgg gin wu rafet tëggin woo xamante ne nii soo koy déglu soo bi dafay neex ci say nopp ci bu fekkee ni ñoo ngi koy jànge na nga xamante ni noonu la ware waaye tamit nga dégg li fi yàlla subhanahu wa taala di wax ndax boo demee ci contraire bi soo eggee ci fi nga xamante ne nii wàllu bokkaale moo fa nekk day gis ne yàlla dafay utiliser baat yu dëgër baat yoo xamante ne nii ah dafa méngoo ak place boobu lu mel ni ki baatu dëddaa wala baatu hëddaa walla baatu iddaa wala baatu azza gis nga baatu yooyu yëpp yalla mu ko indi ca côté bee nga la ne ni di nek fa la fala ka di nek ñi tuumal yalla doom la nek ñom ñooñu ñëpp yàlla daal fi indi ay baat yo xamanteni ni baat yu dëgër la kon mbokk yi alquran ngi ni suratu maryam mu ngi ni inshallah allahu wa taala dinañ ci and ak yeen ndank ndank ci ci atay wala ci lépp loo xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala leeral na ko fi te yàlla moo jël alquran jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu gindi ñu ngir mu teg ñu ci aw yoon kon gars yi alquran a ngi ku ko jël def xarit ëllëg dinga raw di nga am tiyaaba yu rëy ak payoor gu dakk ba faw waaye nag ku seeti la neen su mayul dinañ ko ca caw dana toog di rëccu di jooy jooy yu metti ndax li ko raw téere yàlla bii ku ko bax daa torox te kenn du la naw yal nañ yàlla subhanahu wa taala dafal dégg topp lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ñu xam ne ci man la doomu aadama matul ni muy waxe noonu lay juume mbaa mu wax lu waxu kon lu ci jub dañ xam ne yàlla la lu ci dëng ñu xam ne man la kenn rek moo daan wax ba pare ñu jël lépp te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaneen ku dul moom su waxee dañ ci am luñ ci jël am luñ ca bàyyi lu ci baax dañ ko sant yàlla lu fi dëng ngeen jéggal ma ko ad dahru yanqusu taaratan wa yatuulu wal maru yasmutu taaratan wa yaquulu wal qawlu muxtalafun ida xasaltahu baadun yuraddu wa baaduhu maqbuulu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu